وجه النبي المنتخى المجمل وجه النبي المنتخى المجمل أحسن من كل منير مملي ربي وربي له ما إله يزور خاتي الرسول الله عليه تسليمات مهزي لا سعادتي بلزامها إن ثبتت كما بساتيني بي قد نبتت ملكت خير الخلق خدمة صفت صدور قوم مؤمنين قد صفت ملكني دنيا وأخرى صمد ما عنده يسوع جند لا يختي أبدا وأبدا يسوع من لم يحبدا تسليم مع الخرب لا لأحد هل الذي تسكن الأحاديث هدمت باطلا بخط قد قبل وفر إبليس وان درك ام دول احسان الورى المجملي لخلد نسنا من المكمل دول احسان الورى المجملي لخالد الحسنى من المكمل مدح نبي المنتقى ساد إلى بيت الإله ناس واحد الإله مدح النبي المنتقى ساد إلى بيت الإله ناس واحد الإله حب نبي زاد إلى المدينة المنورة محمد صلى عليه الله مسلما بل الله الله محمد فرد يفوق تسنيا وفاق جمل والهدايا منيا درجة المختار حب المرسل بيعت الله درجات رسلي كل نبي ورسول يبقى خلف وسيلتي والمتقى أمدنا مما ساء ولسوى ناسا فمن ساء لأحمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن دما له جذب فاتقاي ونجوه دنيا نفسراي مدلنا الإيمان والإسلام وحسنا إحسان لم نلام يسرها قد في كل سنة وخيرها من خدمة محتسنة لم يخفى كلمة والحب إلى روضتي والبيت سعد وإلى وعلى آله وسلم وهب للهامل هذه الروف ما يريد في مكة والمدينة بلا آفة ولا كدر آمين آمين آمين يا رب العالمين واجل أسل أبيات سادا مبلخا يا خادر يا مقتدر إلى بيت الأنغام وإلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأنمى تسليم آمين يا رب العالمين Hurrah! ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم سنة إلهي بالمناجات وبلغنا جدي الآت دلالة إخوتي وأولياء خسيدتي خسيدتي خسيدتي خسيدتي فقط خسيدتي فقط خسائد الكرام ولتقول أبدا خير المرام هديتي مهجرة كل ملك كان مناسبا وانصار مليك ما تواجه النصارى الله لبي لا إله لبي لا إله لبي لا إله قصف مام شيخ إبراهيم فال لبي لا إله لبي لا إله أعوذ بالله الشامل العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخير خديم وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جلدي mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu nuyu ba gën a tedd ba gën a matale di nuyoob lislaam waaye di jiital ci nuyoo boobu ak ñaan yi sëñ si sëñ Muntaxa Mbakke mi nga xam ne moo toog jotaayu Cheikhul Xadim ñoo ngi koy ñaanal sunu borom subhaanahu wa mu yàggal ko fi te wéral ko ba mbooleem naal yi nga xam ne yéene na ko ci toolu maam bi suñu borom defal ko lu kawe njortu ànd ko taalibi yépp di ko ñaanal ki nga xam ne moo fi toog jotaay maam Cheikh Fall di sëriñ Cheikh Jëmbu Fall te matu ko sëkk di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi nga xam ne naal na ko ci toolu islam suñu borom def ko mu yeggale ko ak mbooleem njabootu maam Cheikh Fall gépp di yëkkati kaddu yooyu nag ci kaddu yi suñu sëriñ Cheikh Moustapha al Karim ibnu sëñ Abdou Chakour kon ci ndigalam lañuy ñuy waxee kaddu yooyu nga xam ne yëkkati nañ ko mu wax ne mi ngi nuyu mbooleem taalib yi nga xam ne ñu ngi fi nekk waaye nuyoo booboo ak ziar bi da koy teg ci loxo sëñ fàllu Mbacké imam mi nga xam ne kenn ku nekk xam na taxawaayam ci lislaam waaye xam na yéeneem ci dongo yi nga xam ne jëmm la joo xam ne dafa mat sëkk lim doon muy imaam ndax imam ay sart la waaye moom mat na ko sëkk kon sëñ Fallu sëñ bi nee na mi ngi lay nuyu di la ziyaara di teg nuyoo bi ci say loxo nga teg ko ci mbooleem njabootu Cheikhul Xadim gi ak mboolem Cheikh si ak sëñ Moustapha mbakke mi nga xam ne mooy ibnu sëñ Abdul Asis moom Cheikh Amadou Baara ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp ci ay seex sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di nuyu it mbokki soxna yi nga xam ne ñi ngi ci jataay bi muy daayira maam jaara ak bu maam Seydi mu Njaay ñoom it sëñ bi nee na mi ngi leen di nuyu gannaaw bi ñu nuyoo mbooleem taali bi nga xam ne ñoom ñëpp wuy si nañ woote bi nga xam ne jubluwu ci dara lu dul sant rek moo waral jubluwaay bi kon mu ngi leen di nuyu di nuyu waa jamee bi ñëpp di sant di gërëm seen taxawaay ci bi mu leen waxee bis bi ni nga xam ne noonu lañ taxawee ci kër gi bañ man cee jot kon nee na mi ngi leen di nuyu te di leen ziyaara xam naa wax ji du mën a gudd danañ ubbi rek ki nga xam ne muy sëñ Njaga jóg sëñ Njaga Jóob kenn ku ne xam na ko kenn du leen ko présenté muy jëmm joo xam ne liggéey mbépp weesuwut xamle kan mooy maam Cheikh Ibra Fall muy dundam gépp nag soxlawul dara bëggul dara lu dul rek yoonu Cheikh wi mu xamle ko ba ñëpp mën cee jariñu ndax mooy taalibe bu mag bi kon na ko ñëpp ñaanal mu yàgg fi te wér ndax kat yàgg fi kat suñu njariñ la ñun taalibe yëpp ndax ku xool internet bi walla ci télé yi wala ci rajo yi guddeeg bëccëg du selaw di xamle kan mooy maam Cheikh Ibra Fall te loola lam si jublu rek mooy bëgg ñëpp jariñu ndax kat yoonu Cheikhul Khadim bala ca nit a jariñu dafa roy Cheikh Ibra kon na kooku dafay laaj ñu koy waxtaan saa su nekk te bañ a noppi loolu moo ko xamal coonoom yi ndax Sénégal la jóge bërki démb ngir bis bii rek kon loolu ñor na ko loolu kon kon na ko dong yëpp ñaanal ngir mu yàgg fi wér moom it gannaaw loolu nag ñu sant baax Cheikh Moustapha Al Karim te ñaanal ko mu yàgg fi te wér ak mbooleem njabootu sëñ Abdou Chakour te ka nekk ci bopp ba di sëñ Fallou ak sëñ Mortala ñoom ak Cheikh Mourtada ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy ay kilifaam kon ñoo ngi leen di ñaanal ñu yàgg fi te wér lool ba mbooleem naal li nga xam ne am nañ ko ci seen waajur wa ñu mottali ko bis bi nag sëñ bi dafa woote cant ak cant baat bi mel na ne nopp yi yàgg nañ ko dégg waaye tey jii ku laajoon lan mooy sant ñu bari duñ la wax mooy lan ndax dañ koy woyofal ndax bari gi mu bari ko wax mën a maa ngi sant te xamuñu ne sant day dafa bokk ci jaamu yàlla yi gën a màgg kon danañ ubbil sëñ bi tuuti rek ci loolu bu ko fee mu ñëw ci waxtaan yi li nga xam ne moom la war a waxtaan waaye baatu cant bi nga xam ne moom la sëñ bi woote tañ gis ne moom dafay wër di sant ñu bari danañ jaaxle ci loolu waaw daana sëñ bi lan moo tax muy wër di sant rek kon loolu dana laaj ñu définir baatu asukuru ngir bu ëllëgee bu déggee sant ñu xam ban maanaa la am ak ban dayo am ndax li tax ñu war a sant noon bi nga xam ne mooy noonu doomu aadama muy iblis dafa waxante suñ borom bi nga xamee ne suñ borom tëkku woon na ko ci bi mu ko waxee mu war a sujjotal ki nga xam ne mooy suñu maam aadama mu lànkoon ndigalu suñu borom loolu waaye waxtaan wu gudd na du jar ñu koy indi waaye lañ ci wax mooy waxante na moom xamal ko ne ko mbooleem jaam yi nga xam ne dañ lay jaamu topp la danaa fexe ba ñoom ñëpp danaa lay gàllankoor ci sa yoon wi ba nuñ agsi ceew daar koy wax na li ëpp ñoom nag duñ sant duñ sant wala tajud aksaruhum shakirin kon dafa mel ne dafa defi ak ñun ngir jaam bi bañ a sant kon xam na ne sant dayo bi mu am ak fi mu toll kon Iblis nag wax ne danaa fexe ba jaam yi ñu bari ci yow duñu duñu la sant kon ñu xam ne kon ku dul sant rek xamal ne yàgg Iblis yéen a ànd yéen ñaar muy lu doy waar nag te suñ borom wax ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla na ngeen lekk ci li ma leen wër wërsëlagale waaye nag te ngeen sant ma li fii yéen a ngay jaamu. nga xam ne kon bàyyiwul kenn yaa ayyuha alladina amanu kulu min tayibaati ma razaqnaakum waskuru lillahi in kuntum iyaahu ta'budun kon suñ borom digal nañu kon bim ñu taw féexalee ñu am ay xéwal yoo xam ne ko xéwalee waay waay nee liñ koy njukkale rek nan koy jaamoo te sant ko kon sant lu woyof la waaye lu diis la ci suñ borom te suñ borom wax na de ba day na ngeen ma sant waaye bu leen ma weddi kon ku dul sant rek yaangi wedd weddi suñu borom waskuru li wala takfuru kon ku santu rek dub nga ci la nga xamne moy hisbu shaytan kon motax señ bi di sant señ bi nak mënut a ñàkk sant ndax lan ndax suñu abdu shakur lan lay teki al abdu moy jam bi nga xamne jamul kenn ku dul suñu borom moy jamu yalla la waye nak moy kan santa kon bi te shakur dafa bokku ci turu suñu borom yi te suñ Abdou Sakour turam woowu maanaam sëriñ tubaa moo ko ko tuddee moo ko ko sàkkoli nag moom sëñ Abdou Sakour ba tey li tax mu ñëw jamono ñaar ñoo ko sàkk mu ñëw muy maam Cheikh Ibra Fall ak Cheikhul Khadim wëlbati ko tànnal ko aw turam tuddal ko jaam bi nga xam ne mooy santaakoon kon mbokk yi sant am na solo lool ndax bi nga xam ne soxna Debbo ñëw na ci kër maam Cheikh Ibra Fall yàlla def amu foofu takk ndeer maam Cheikh na Faye yónnee ci Cheikhul Khadim wax ne kat dafa bëgg soxna si am ab takkandeer boo xam ne da koy jàppale ci liggéeyam bi ndax yàgg na fi te amu ko Cheikhul Khadim bind benn bataaxal jox ko ndaw la na ko boo demee na ko takk bi mu ñëwee jox ko maam Cheikh mu takk ko yàlla dogal leer ga am sa bi mu amee ay bis xam ngeen ne ñoom daawuñu def dara ci lu du ndigal maam Cheikh na Faye yónnee ci Cheikhul Khadim di laaj aw tur bi nga xamee ne ndaw la ñëw na ci Cheikhul Khadim ne ko maam Cheikh Rafaay mooy laaj ndigal mu ne ko soo demee nañu tekki bataaxal ba ma ko joxoon loola moo di turam bi ñëwee fekk ñu bind ci Abdou Shakour ñu tëdde ko noonu kon moom aw turam moo ko jiitu jamono waaye sëñ Tuubaa moo ko ñaan suñ borom mu ñëw waaye maam Cheikh Rafaay moo ko sàkk kon jëmm la joo xam ne dafa ñëw ci jamono di sant Cheikh Moustapha Al Karim yi nag bokk ci ki nga xam ne moom la Cheikh Abdou Chakour mujj a gis ndax dafa waxoon ne day jëmm ji ci lay mujj a gis ab takk ndeer kon ku yéeme ngi noonu kon moo waral nag sëñ sëñ sëñ Moustapha di wër di sant santam yi mooy ca senegal saa su nekk dafay wër di sant waaye ci Europe day wër di sant la ko war a mooy munta ñàkk naka sant te suñ borom dañoo wax ne لئن شكرتم لأزيدنكم ولك ولئن كفرتم إن عذابي لشديد كون دا فا وخني بو نين سانتي بو نين ما سانتي مان سون بروم ميغا خاندي ما سو بابا دانا دولي دينا لين دولي اي خيوال وينك نك بو نين ويدي سما خيوالي نالي نما نك سما مبوغل لو تار لا كون سانت دا فا موندو جام تي يونتي بي وخون بن حديث بو ابو هريره مكو سولو yàlla kat du sant ab jaam boo xam ne du sant nit ñi laa yaskurullaha man laa yaskuru naas ku dul sant jaam suñ borom du la sant kon moo waral sëñ Moustapha wëlbatiku di sant waajuram ko ndax ku dégg xadis la ku la kon sant du caagee ni nit dafay toog rek di sant waaye day ndigal loo xam ne dafa jóge suñ borom looloo tax nag muy sant te am na xadis boo xam ne dafa ne man lam yaskuru naas lam yaskurullah kon lii moo waral sëñ bi di sant sant nag ñaar la sukuru am wa sukuru xaas lan mooy sukuru am mooy nga tudd ci soo làmmiñ na alhamdulilah sant tudd xéwal yi la yàlla xéwal ci yow kenn ku nekk yàlla dana la xéwal xéwal goo xam ne léeg sa diggante sa borom la nga bëgg ca loola sant yàlla ci xéwal googee nga xam ne moom la la xéwale loolu mooy sukkuru am wa amma sukkuru xaas nag mooy lan mooy nga sant na alhamdulillah ci sa làmmiñ waaye nag nga jàpp ko ci sab xol du bi nga ko tuddee fas nga ci sa xol waaye nag ànd ak wal xidma bil arkaan nga ànd ak nag di ko liggéey ci sa cër yi sa moyens yi la jox ngay jëf-jëf joo xam ne dafay tu addila al amal dafay wane ne yaa ngi sant ndax cant gi gën a woyof mooy alhamdulillah waaye nag a sukur am ak xaas da ngay jóg nag wane loolee ci say cir ci say jëf comme nii nga xam ne noonu la ko sëñ bi defee mooy wax na ko waaye yëmute fas na ko ci xolam waaye dafa jóg nag di jëf-jëf joo xam ne day wane ak cant la ci jublu mooy jàng alxuraan jàngi xasida waaye waxtaanee ku baax ngir ñu mën roy ci moom tudd yàlla julli ci yonante bi loolu day wane ne ay jëf yoo xam ne dafay wane ak cant kon looloo tax mu wan ne loola te suñ borom waxoon na i'malu ala daawuda shukra yaani i'malu amalan tu addu dafa waxoon ne na ngeen sant yéenu ahlu ahlu daawud waaye nag loolu da ngeen di jëf jëf joo xam ne day wane sant gi ndax alhamdulilah wala sant naa yàlla yem ca te man leneen lu dul loolu loola sukuru am la waaye du xaas xaas ji dangay jóg jëm ca ni nga xam ne noonu la ko sunu sangam tedd bi ni mu ko defee li tax nag sant di mat ñetti anam la ñetti mën anam la mooy bu njëkk bi bu la yàlla joxee nanga xool lam la joxe lam la xéwalee ak cër bam la joxe nga sant yàlla ca loola su fekkente ne yàlla dalaa boole ci askan wu tedd wu màgg borom xam-xam borom diine borom ngor nga xam ne loola yàlla moo la ko taw tawfiixale muy xéewal goo xam ne nit mënu koo sàkku ba am ko nga jóg ngir sant ngir loola loolu dafa bokk ci li nga xam ne day tax cant yi mën a mat kon bokk na ci li Cheikh safaa def muy benn ñaareel ba mooy nga gërëm loo li la yàlla xéewalal kenn ku nekk ci ñun am na cër bu mu am ak lu ko yàlla jagleel loole nee na nanga ko gërëm te bañ a di ñeetaane ak di bañ di xool ak dak kon na ngay gëm cër bi la yàlla jox amaana am na ko ne ci suuf koo xam ne yaa ko tiim mu bëggoon a mel na yow kon nga sant yàlla ci cër boobu mu la jox bokk na ci ñaari cant yi xam ne mooy tax cant mat ñetteel ba nag mooy bi gën a jafe li fi li la yàlla xewaleel yaa ngi gis njariñ la mu nekk ci yow mu ne waay waay rikk li fi yaa ngi dund na nga fexe sa cër yi bu ci mooy yàlla mukk wala ngay def loo xam ne dafay naqar yàlla ndax yàlla moo la tawféexeel ba nga am xéwal boobu kon yow jaam bi bu la yàlla joxee lépp ba nga jóg di ko sant nee na na nga fexe nag ba ci sa dund bul moytu yàlla ci say cër ndax yàlla moo ko doon sant mi ngi fi kan te bu ëllëgee dalee audit ci xéwal loolu summa la tusaluna yawma isin anin naim kon xéwal yooyu ñu yàlla jox bu ëllëgee dañ lay audit laaj lay ndaw ndax yow wér gi la yàlla joxoon ndax daa ci sant yàlla di ko jëfal alal ji la yàlla joxoon ndax daa nga ci sant yàlla xam-xam bi la yàlla joxoon ndax daa nga ci dimbilee doole ji kazalika alal ji noonu yooyu yëpp nag ay xéwal yoo xam ne yàlla moo la ko jox te it bu ëllëgee dana la ko laaj kon mbokk yi baatu sant moo tax Cheikhul Khadim bi mu demee ci liggéey bu réy boobu juróom-ñaari at ci géej gi ñëw def ñeenti at fële nga xam ne mooy gànnaar ñëw ceen jolof def fa juróomi at ñëw njaareem lan la wax te foofu def na fa juróom fukki at juróom lan la wax mooy sant leen ma yàlla sukkur la andi baat boobu la andi moo na day bi muy dem ànduta kenn lépp moo ko def waaye gis na ne nee na lot naa sa ci xéwal yi nga xam ne def na ma ko ak li ma doon sàkk mu may ma ko waaye musal ma ci sama noon yi waaye defal ma tawféex ba ciri yi nga xam ne góor yàlla ñu ngi koy dugg amuñu ko ma am ko kon nag loolu lott naa ci sant sama ci ci ma boobu ma joxoon kon yéen ñi nga xam ne yéen seen taalibe te yaakaar ma waaye waaye rik li ma leen di sant li ma bëgg ci yéen mosuma ko sàkku ci yéen mooy kaay leen sant ma yàlla saa bés bi kon gis ngeen sant baat la boo xam ne nit ñi ñu ngi koy wër di ko wëndeel waaye dayo bi ak maanaam yi kenn kenn xamum toll te buñ la waxoon day lañ la ci fay bu ëllëgee bari na lool ndax dañoo xam ne sant day mooy jaamu yàlla ñu njëkk ak ñu mujj mooy jaamu yàlla mbindeef yi mooy jaamu yàlla malaaka yi waaye mooy jaamu yàlla mbooleemu ahlul ard waaye mooy jaamu yàlla ñooñ ajjana lu yaatu la damay bañ a guddal ngir ne sëñ njaga mi ngi fi te ñun duñu boroom xam-xam wante dañ ko doon ubbil ngir définir lañ ca xam ci baatu sukkuru ngir bu ëllëgee bu mu Moustapha waxee damay sant yàlla wala damay sant diw ngeen xam na kat dayo bu rëy lam ci islaam keneen ku ngeen dégg mu na damay sant sëñ Tuubaa wala damay sant soxna jaara wala maam Seydi bu Njaay nga xam ne am na dayo boo xam ne la ci nekk ci tuyaaba maanaam ëpp nay wuute ndax li ci nekk ci ay tuyaaba ak i ngëneel bari na lool te xam naa ne temps bi duñu ko may waaye waroon nañ ko indi waaye bu ñu ko démontré woon dangay ngay gis ne ñi ñu njëkk dugal ajjana mooy way sant yi ñooy njëkk dugal àjjana kon xam naa ñoo ngi wàcc kaddu yi foofu rek su di sant mbooloo mi ci teewlu gi ak dikk gi ak wuysi gi su ko defee di sant fédération Mame Séré Fall bi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu ñëpp ñëw nañ ci woote bi nga xam ne Cheikh Moussa woote na ko di leen sant di leen gërëm ci mbooleem jëwriñ yi nga xam ne teew ndax mbooleem dëkk yëpp ñëw nañ dëkk yëpp kenn ku nekk sa ndaw teew na fi xam naa duñ ko mën a lim waaye ñoom ñëpp agsi nañ ak seen yéene ak seen pësteef waaye kër sëñ Tuubaa it ñëpp ñëw nañ waaye daayira it kazalika ñëpp ñëw nañ kër yëpp ñëw nañ kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa di wàcc kàddu bi jox suñu njaga su ko fee mu dikk ci li nga xam ne waxtaan bu ko fee ñu ñëpp ñu bàyyi ko xel te xam ne jëmm la joo xam ne ñun ñëpp nañ taataan li muy wax xam ne jëmm la joo xam ne yombuta am te mi ngi ñuy baaxee lu bari kon na ko ñëpp teewlu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ak santam di leen balu ci bis di jiital ci nuyoo boobu sëriñ Moustapha Moussa Abdou Sakkour di teg ci loxoom nuyoo mboolem njabootu Seexul Xadim gi toog fi moo xam bokki Mbàkke lañ ak mbosóo bi ak Seex Sëriñ Tuubaa bi moo ci tuddee sëñ Sidi Mbàkke moom sëñ Abdoulahi kon de bi nga xam ne fi lay yendu sëriñ maam sàmbam Cheikh Mouhamadou Mourtada ak mboolem seen bokk yi ñu fi fekk ak yi leen fi fekk ñu ngi teg ci loxo sëñ Moustapha seenum nuyoo ba gën a sell may teg ci loxoom ay ba tey nuyoo jamaayatu taawuni ala taatillahi wa rasulihi bi nga xam ne moo ëmb مبارم تالي لي نك تالي أقول جل جل سخلاي بخ نخ شيخ محمد المفضل لم يكن يجيل وتشو وتشو وتشو وان خد أكسين تعاون على طاعة الله ورسوله رجل وقن جبل أنت تتوقع يلا أجيونا صلى الله عليه وسلم ñuy am bekte lol ci téwé jotaay bi and ak yeen liggéey bi ndax fépp fu ñuy daje di fàtt di fa fàttalante lu jëm ci sunu pas-pas ak sunu diine loolu liggéey bu am solo lay doon rawatina bu ko wootee nag koo xam ne loo loola daa war a bokk ci aw sasam muy feeñal liggéey Sëriñ baax ak dox yi nu taalibe kon ñu ngi ciy sant bu baax di leen sant yéen yëpp di sant yëpp boroom xam-xam yi teew ci jotaay bi yëpp dafa séenee jot li li nga xam ne moom lañ bëgg a leeral te daal ci génn njàngaleem Sëriñ Tuubaa ndax kat war noo xam ne ñëpp ne jamono toll na foo xam ne ku yàlla jox lu baax war nga koo téye sa kem kàttan ndax yi fëkke ak yiy sànke bari na lool ba tax na ku yàlla jox lu baax lu mel ni Cheikhul Khadim ak liggéeyam ak njàngaleem ak maam Cheikh Ibrahima Fall war ngaa xam bu baax fa ñu tegoon seen tànk ak lañ bëgg ku ànd ak ñoom teg fa sa tànk nga jéem koo xam ngir man bañ ko wàcc ndax loola rek mooy sunu mucc mooy sunu yokk mooy sunu kaaraange ndax kat jamono ji doy na waar lool sopp kuy bari na lool yëf yi li ci dugg te bokk ci bari na lool loolu nag lu mat a xàmmee la kon ñu ngi sant bu baax mbooloo mi ci wuy si gi nga xam ne wuy nañ ñi ñu wuy si it ñu leen di ñaanal suñu borom defal leen tawféex ba dañu war a leeral ci lu leen amal njariñ ci seen àdduna ak seen àllaaxira suñu borom defal leen tawfeex bañ mën a leeral loola bañ mën ko jariñoo ndax loolu rek kat mooy solos daje daje yi buñ ci jëlee ay bind yu nu yokk pas-pas di nu yokk euh, lu baax day mel ni kon njariñ li dana des ak tur lu mën a rëy rëy rëy kon yàlla na yàlla defal tawféex ba nga xam ne dana nekk jataay yu gërëm yoo xam ne lañ fiy wax ak lañ fiy jëf lépp dana dëppoo ngërëmul suñu borom dëppoo ngërëmul Seexul Xadim loolu rek mooy li nga xam ne moom lañu ci wax di ñaan rek sunu borom subhanahu wa ñi sol seen daal ñëw fi bàyyi seen yitte léegi buñ seq ñëw fii yàlla na ko yàlla def muy ak yokku waaxira na ko baaxi na ku fi indi tawat yàlla na ko yàlla saafara ku fi indi te ku fi indi yitte yàlla na ko yàlla faj ñi nga xam ne it dañoo nekk ci ay xat-xat yàlla na ko yàlla teggi te defal leen xéewal ak mucc defal leen kon na mu gën a ci ñoom sëñ Moustapha mi nga xam ne moo woote lii itam suñu borom sàmm ko bu guddal aw fanam te dëgëral ko saxal ko ci yoonu wa maamam yu baax yi jaaral te ànd ko moom ñu ngi ñaanal ne ko suñ ma ma ma wax bi bi bi bi Abdou Diouf gañee kooku ñëw ne ko xanaa ah, Mbàkke kontaan nga mu ne ko man maa gënoon kontaan ngeen bañ a woote ngeen xam ne ma suñ tubaab fi li xool sama diggante suñ tubaab nan la ma suñ tubaab di fajal lii ma wax kon loolu sant na taman man gëm naa bi ñëw fii sëñ Thierno laa fi taxawee ndax boo fees naa del loolu laa gëm waxuma ko pour dara nag mu ko wax ngir sëñ Thierno ndax sëñ Moussa mi day baax te bàyyi njage mi ñu fi nekk ñëpp xam nañ jikkoom ci loolu muy nit jii di sëriñ bu ndaw boo xam ne nii foo fekk Sénégal ay mag lay àndal ndax rek bañ a jàdd yoon di sama xarit loolu ñu yàgg lool Seexul Xadim xam na ne ñii di ak xam na ne day nekk day wër day tukki ba ñibbi bàyyi njage mi man man na ma seere bu wàcc Sénégal du yóbbaale dara 100 euros lay wàccaale lépp da ko joxal ma nga nee barke Seexul Xadim ku ko xam ku ne xam ne wax day tukki bay ñibbi wóor na suñu tubaab Mbàkke léeg-léeg day wàcc bu wàcc Sénégal bu wàccee gasoil bu ko yóbbu sax du ko am barke Seexul Xadim nan laa def bay tabax man loolu laa ko loolu laay wax nan laa def bay tabax kër ndax ba ndax ndax ndax yitteem wante euh, man nag euh, li ma wax lépp su ma su ma doolee ne maa ngi ñaan day mel damaa leen a yëpp kon nañu tib li suñu ma am rek jox leen pare gu ñu nag ñu ngi ñëwaat ndax murid nag dama bëgg naa ñu góorgóorlu ci ci baax baax ci taalibe gi ak pastef gi ndax legui euh amna ci jamono ji loo xamne dafa xawa doy war legui ba baat yu bari maa ngi ko dégg yoo xam ci yoonu murid legui wóor am muy lan kifi nek amna ci mom yaakar lolu ma ngi wax ba jegg ba kiram ku nek amna ci mom yaakar lolu du waxi murid suñ mën taxam fi nekk am ci mom yaakar mi li kifi jóge dafa bon seigne tuwaa kufi nek rek man nga ko seuk lolu du waxi taalibe ki fi nekk am ci mom yaakar kufi nek rek man nga ko seuk day melni kon da nga da ngay sikkel kifi jóge ba stop muy sama mbokk yi nga xamne ne duru xassat lay def te def wax ne ñoom xasida moy seen serigne lolu ku ko def ko ne juum nga ndax lépp solo mooy jëf wax baax na lool muy jàng wante nañ ci boole jëf gëm suñu tubaab muy dëgg ndax jumaay suñu tubaab ay wax kese tawaxu jëf jëf moo ko tax moo ko taxawal xam na ne solo bee ñu tuddee Seex Ibra du ay raaka a tax ñu tuddee ko ko bu doon du ko tuddee kon nan nan nan jëf te dund taalibe bi dëgg ndax dama naan li ñu bëgg bëgg xasida ak di ko gëm doomu suñu tubaab gën a bëgg xasida gën ñu ko gëm te mosuñoo gis benn doomu suñu tubaab bu jël xasida mooy sëriñam wala tuddi ko doom te suñu li muy bëgg bëgg xasida yi njabootu boppam nan foog nga njaboot suñu tuwaay gi tamit dëgg ba sop ñun suñu morom ñun ñi nga xam ne ñooy wooyee seex dama koy wax toujours mbàkk te yàlla may teral Sénégal na xam na xam nañ sam sëñ bi ñuy toog ñëpp samay xarit lan samay ak ndax lan bëgguma sol lu gën a rafet laay dund te ñoom ñëpp ak mbàkke mbàkke ndax leen gën a rafet li ñuy sol barke Seexul Xadim sama kër musuma taal kilomètre sa fanaane ko bët set ndax su ko tëddee su ko taalee ba xaaj bi xalaat ne am na sët suñu tubaab bu ko amul su ma taalee jóge nekk foofu nga war a nekk te ñun ñuy wooyu seex doo dem ba bëgg a def Mbàkke Mbàkke morom te ku def ku ne ñàkk jom ndax lu sëñ Abdou Lambaye lu ñuul keneen ñu mu ko woon boo ñëwee gis baak baak boo ko defee moom ñàkk jëm te am fula ak fayda mi ngi fexe ba sa maam lam lam gëm lam nekkoon nga necca ndax signal bi la may ñëpp xamoon ne amutoon fitu bokk suñu taa toog ci kaw kon ñun ñu ay sëriñ bu amee fitu bokk sëriñ suñu taa toog ci kaw loolu ñàkk jom la te fula ak fayda mooy la sa maam nekkoon nga necca te léegi ku ci am ñetti seex bu ci am ñetti ñetti jasneer am ñetti taal bi bëgg def mbaake mbaake mborom te boo boo ko ëppalee boo ko boo gën a solo lu gis gën ko bëgg ko def maram waaye kon boo defee noonu tourné gis tubaab bi nga xam ne moo gëmul yàlla gëmul dara ëppalee la fop kon yow kon noonu noo war a defee kooku xanaa kon nu nga ne kooku moo la gën kon nan xam li ñu suñu taa defal li ñu suñu taa defal mooy lan ñu delloo njaboot suñu gi bi delloo ko njukkal bañ leen yemale dara loolu muy ful maa ngi jégul bu baax jërë ngeen jëf murit ya naan ko Bamba nos na ruy yow ma laala si faral tey noy Sëriñ Mamar Maane moo ko tontu booba naa ko da kàcce dañuy dem Tuuba folli la tey tekki sa ndomboog tànk moo gën a yomb nga wax noo lànk dag yéen a tës penc ma dal di murit ya xaaco mbar ma daldi laxaso murit ya ñëw Tuuba xibaar ko Bamba mu xëy na ñaanal leen ko tas naa jalba ca dee dem kalaame ko borom Ndar mu naa da ngeen ba mel ni aw dar ya at la tence melu bo be la ray musa mi nuy wandelu kero la gaday wuti riiwum nyoro de fekke lam do jul be gaayay leru ba mu bo we weesu riiwum salum ñu war ko mbar ma del se fafne malum kero la fekke Bamba ngir tubal ko cheikh ban ban an muriti ngeen jegal ko ci moma at lañu ko wo mu dem nar musan walanteru ñaw kara yaram dal koy dar mu dellu ndar tubaab ba far nandal ko kaasak posan malaaka far mandal ko mu delsi ba añ kirog la wuy ji yàlla yaa jaban yim na sëtu mam balla ca at lañ génne seex ya tuuba di aaya jillee di aaya tool ba taalub sëriñ ba dal fay fa tuuba ak mbakke cey cey jee ka wuuteeg booba ñu dal wuu sëriñ ba booleeg samba buur ak jolof mu daldi ànd ak Bamba